dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yawma hisaadihi wala tusrifoo Cheikh Abdoulaye na nga nu laatuwaale bamba mi sab jubaale ki jël Moustapha def mu ganti mbindeefo dofal bamba xaadim mu fal seyxuna su duniyaa defoon kër gu solo dalay feete def la kombatina jëmul joo xam ne jii de daanaka rek dafa xew a li ci kilifa yi ndax moo fi jëkk a tudd Abdul Ahad sëñ Tuubaa tudde ko ko Abdul moo fi gisati rek moom lañ ko tudde li nga xamee tur yi li muy tekki mooy kenn noonu la nekk woon kenn ci jukko ji ak fit wi ak euh, pastéef bi ak taalibe gi ak gëm gi yàlla ak euh, dog wi mu ngi feeñ ci ama balsasin ci weer wii ci ñaar fukki fan yi ak juróom ak ñett ama bal sësin ci njaareem gannaaw boo xam ne bii sëriñ bi jóge ne gànnaar ba dikk jolof ba jóge fi dikk njaareem ci ama la ñu toog fi ñaari at at ba di ama bal ci la sëñ Abdou Lahad Mbacke feeñ waa juróomu jigéen mi ngi tudd Soxna Marema Jaxate moom mook sëñ sooy bu ñoo bokk ndey ak baay waaye bi mu feeñee sëriñ bi ci boppam feeñal na ci ay yëf lool yoo xam ne yu ci nekk rek feeñal na ne kii borom mbir la bu yëg bu yëg si ku taseeg jamono moom jamono da nga xam ne borom mbir la ndax ci sa wax nañ ne woo na ay jëmm yoo xam ne ci taalibe yu mag yi la xamal leen ne na ngeen dem fa nopp ba ngeen jàng fa xasit gu ñu tuddee fusti bi darbil xasanaat nga xam ne Mariam mi nga xam ne mooy yaay Sidna Isa Sid Sidna Isa moom la moom la fa sëñ Tuubaa yi tagg moom ne nañ ko jàng foofa tifli ko ci nappam te it ne na ngeen ko ñaanal mu dund ndax am na ci moom yaakaar lool yaakaari sëñ Tuubaa ji mu waxoon nag waaw yaakaar la joo xam ne ji lu mu tegoon bëtam la ku koo xam ne kii fekk nga jamonoom gis nga ne yaakaar lu mu yaakaaroon ci moom mu ngi ci moom dëggal na yaakaaram wér-wér ndax bi nga xam ne yàlla dugal na feeñ na te sëñ bi jox ko nijaayam bi ñuy wax sëñ Hamsatu Jaxate fii ci Touba ne ko joxumal ko ngir li ngay kat ndax baaxuma loolu ndax man képp koo xam ne kii maa jur jébbal naa la yonent bi sallallahu alayhi wa amatuloo beneen sëriñ amatuloo keneen ku ñu la war a ci am cër ci moom itam ni nga xam ne bi man kenn amut ci man cër ku yonent bi sallallahu alayhi ndax ñi ma am ñëpp moom laa ko tuddee di gëm a yonente bi defut loo xam ne da ko da ko gonte lu mu xëyee rek la ngir moom bi mu amee ab taaw moom la ko tuddee muy sëriñ Mamadou Moustapha bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy sëriñ Fallou bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy sëriñ Mouhamadou Lamine bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy sëriñ Mouhamadou Bassir koo xam ne koo jur tuddee ko kon wóor na la kenn keneen amul ci yow objet loolu kenn nattab liwu ko jox na ko léppam jàpp naa ne moom dey bokk na ci jikko yi jël ci sëriñ bi xel mu rafet xol bu rëy tabe aw fit ak ñime dëgg ndax kero bi nga xamee ne gane ne àdduna te mooy bis bii ñuy waajal nii di ko màggal nii sëriñ Tuubaa ko njëkk a màggal ndax jëfe na ca noo xam ne masu masuñoo gis mu jëfe ko ci lu mel noonu ndax xam ngeen ne nit bu gënee àdduna bu dee suñ aada nun mbakki mbakki yi ba ci busu busu yi ca cosaan dañu daa am daara yi alquran te bisub tudd bi daara ji duñ mën a duñ mën a bokk ci xéewal gi boo ko defee dañ leen di beral bis ba ko jitu tudde ko sarax lolu mo war ñu naan serang baat biñu yaxu yàqu donc yi nga xam duñ mëna jot ci bis ba bis bobu lañ ñëndi di lolu ñi ci dess duñ ko def mbakki mbakki yi def bo wala ci bus-bus yi loolu nag aw bay lañ ci yi togg ci liñ wax laxu caaxaan togg ci tuuti ciep ndax bobu ciep dafa jafé ñu jaxase ko ci ben ndab bu ko defé lolu moy serang nak aada la juñ fonk ci aada jooju yi ndegam sunna bañu ko dafa law di wéy ba ci sëñ Mor Anta Sali ba ci sëriñ bi di ko def ci njabootam biñ egsee di ko def di ko def ba sëriñ Abdul Ahad ñëw jamono soxna Roqaya Mbàkke mi nga xam ne moom la sëñ bi féetale woon loola te muy doomi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali te moo jur sëñ say sëñ sëñ Balla Busa ak sëñ ak suñu soxna roq yi moom ñëw ci sëriñ bi ne ko mbirum soxna Mariama kat ganam gi ñuy war a ganale suba aada gi ñu ci daa def tudde ko serang dañ ci daa def nangam ci ceeb def ci nangam ci pepp di laaj ndigal sëriñ bi ngir mu joxe ndigal ñu joxe ko sëriñ bi ne waaw moom dey dafa bokkut ñu bari nañ def léppam ceeb ndax moom de xam naa ko ko mag waaye xuma ko ko gën kon na ko sëñ bi njëkk a wax sëñ Abdou Lahad mooy kan ba ca topp sëriñ Baara moo nettali sëriñ Abdou Lahad ne ko dafa doonoon xaritam lool mu ne ko sëriñ Baara ndax xam nga lu tax ma teel laa tudd doom mu ne ko bëggoon naa ko xam sëñ Baara moo ko wax sëriñ Abdou Lahad ne ko ndax sëriñ Abdou xam nga lu tax ma tedd laa tudd teel laa doom te xam nga lim ko màggee bari na. sëñ ba sëñ Abdou ne ko waaw moom de Mbàkke bëgg naa ko xam. mu ne ko yàlla dafa def bis bi nga gënee bis bi ñay bis bi ñay wutal aw tur dafa maa fekk ci sëriñ bi ma egg si fekk muy joxe ndigal sëriñ am satu ngir ñu tuddi la ma yam ci gis muy wax ci yow ay jagle ak ak ak kiimaan yu rëy rëy rëy daal di yeble joxe tur ne nañ dem. nee na biñ jógee ma ne naa xool ba xam danaa mën a ànd ci yëf yi am de ndax lii kat mosuma gis bi def ko lii mu ci wax mosuma gis mu wax ko kon nag naa dem barkeelu ci may xool ba xam bu ma jógee dana mën a toogal wala dana mën a dana ma bàyyi nee na ma daal di jóg topp ci ñoom di déglu nee na ma dem waxuma dara ma dikk ànd ak ñoom ba ci kër gi ba ci néeg biñ koy tudd sàkkulew tur biñ tolloo ci sàkku ba ne ci biir rek sëriñ bi jékki-jékki exil boppam fekkaat leen fa te loolu nee na mësta am dali di jaaraat ci lam waxon waxoon ci soxna Roqaya ne ko mom de manis nako mag de way manis ko gën te it am ci mom yaakar daal di kilifa yu mag yu yag yag daraja yi ya ñu wàccaale jamono mu ne la wàccaale jamono yo xane xeyna du jar ma di ci jaar. bis bi nga xamni bi ñi ngi def lu ñu tuddé ñaan te ñi kilifa yeb dajé fa kër la fallu Abdoulaye nefa ba mu dikkee ba mu njëkkee wax ci serment am dafa wax ne man day jotaay bi ma toog am naa juróom fukki at sëñ Ba ma yónni rek fu ma dem loolu lay wax kon moo toogee ba tey ba am juróom fukki at ñu xëy na ma yaa fi nekkal yaay xalif général di murid yaa fi nekkal sëñ Tuubaa yaa fi nekkal yoon yi mooy yaa nekk ci buntu àllaaxira rek fu ngeen fi dégg te xalif général <laughs> buñ buñ na bàyyi koro yi xam leen mooma man a woo fit ak googu ñeme ak googu ñeme dëgg ak googu gëm yàlla jafen lool xaw ma si li ma xam ci moom xaw ma ko ci kenn ku ku ku ku jeexal gor takk la du la wax mukk lëf nar lëf ne la wax def ko ne bëgg la waaye la wax nar ko nag kon sañ na ko waaw nit la woon koo ko sëñ xam da yëgu ko ko fa teg ndax kenn da nga teg sëñ Tuubaa fenn ah, waaye am loo bëgg tax fa nga ko war te tegu ko fa. moom kay moom nit la woon koo xam ne kii rek ñëpp la fi nekk lan ñi bokk boole mboolem ku la gën a yéen jigéen ñi am na boo xam ne bii sëñ moom moom mi dafa dajale dafa ànd ak soxna moom suñu daje fa di ko gane te bu yëgoowuñu ba kenn ku ne ñëw fekk fa sa morom ci benn bis kenn ba mu ñëwee danoo woo nu ñëw mu ni ñaari borom kër nañ ma yet am xar bëgguma bëy nu indi ko. moo tax boole coono nag rey lépp daal ni xam ngeen li ma def lu ma ci jubloo noonu ko déedéet de xamul ko de mu ne bu fi sëñ Basiru ak sëñ Fallu daje woon ndax daanu bàyyi ci sunu sunu kattan dara ñu ko déedéet mu ne kon nag ñaari doomi sëñ ci waay bu ñu fa dajee nu bàyyi ci leen war a def dara sëñ Tuubaa taxul ñuy dafa am ñaari yëf yoo xam ne moo ma gën a ñor ci lu mën a doon te ku ñu tudd tudd sëñ Tuubaa ku ne loolu laay xool ci yow muy dëggu ku dëggu la du tricher lu mu la woon ci kaw moo ne ci biir. ku gëm sëñ Tuubaa te loolu rek la man laay nawe nit sunu yaakaari ëllëg yeesuwut sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñu daariloo mën caa teg baaraam lu dul sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa mi yéen àndal day du leen wax fii mukk ne man Abdou Lahad nee naa sëriñ Tuubaa nee na rek laa leen fii wax sëriñ Tuubaa nag dana am lu leen wax loo xam ne wax nee na ku ma defal la nga man danaa la defal loo mënut ku ma defal loo mun danaa la defal loola jomb te loolu yéen ñi ñëpp wóor na leen xam ngeen ko. noonu la mel ci wàllu xam-xam bi ci alxuraan ji ci xel mi ci fit wi bi nga xam yàlla dogal na mu nekk fii itam lam njëkk a def ci walanteer moo di dafa daal di teggi na jaay yeeg ak bokk yëpp dem ci sëñ Mourou Moustapha mi nga xam ne mooy magam yi nga xam ne mooy xalifa Seexul Xadim ci yooyu jamono. mu mu mu mu jébal ko boppam jox koy li nga xam ne moom la yor ci ay barkeel yu bokk ci sëriñ bi ne ko yow yaay mag te la war war yëpp ci wala war man amaguma yenn soxlaagun man ngaa te yëpp ba ba ba am ci kii féeteeg moom foofa la yaroo fa la sëñ Cheikh Moustapha itam jàppee ko ni ni doomi sëñ Touba yu nekk fi moom sëñ Cheikh magee na ko ñaareet waaye teewut lu muy def sëñ Abdoul Ahad lay jiital soog caat ak sëriñ Cheikh di bu doon ci aada képp kon ki mag tey tey taaw ki nga xam ne moom nga moom nga nekkal kon lu ñuy def moom la ñu waaye du du aada leneen la xar ko àddit la loolu la doon dox moom ah sëñ sëñ Abdou it fab ci moom yu bare bare bare xel meeg dal geeg fit yeeg teey geeg ak njaxlal geeg ak xeriñ geeg ak mën a muñ geeg setantal geeg ak kàddu yu leer te yëpp jël na ko ci moom li nga xam ne yàlla dogal na mu dikk ba yegsi ci Cheikh Ab si El Hadj Fadilou Mbacke nekk xalifa mu dikk jébal ko boppam ne ko lu lu fe fee falaa yaroo falaa léppee waaye lu ma xam ci sëñ Tuubaa yow yaa ma ko xamal kon nag yaay sama sëñ Tuubaa fi mu toll El Hadj Fadilou dal di koy jàppee noona ba nga xam ne euh, fu ñu ma saa ànd dem. bu ma am na yoon woo xam ne sax ci misaal rek dafa ànd ak moom ak sëñ Moustapha Fall xalifa maam Cheikh Ibra Fall ak ñeneen i kilifa ñu dem wuy gouverneur Ndakaaru bañ ne ba nga xam ne gouverneur génn nañ ba ba ki gunge mu ne ko dama laa bëggoon a xam ne nga wax ma kan moo lay bu ma la gisul kan lay gis nga xam ne maanaam daal kan moom mooy sa sa kutaay ci man loolu mën naa tekki bu ma la gisatul ëllëg si biir. man naa tekki itam bu fekkee ne da yónnee wala may yónnee wala yu demee noonu waaye nag sëñ bi moom da ko daal tontu ci saa si ne ko sëñ Fall da ko daal tontu ci saa si ne ko Abdou mi te booba ay magam a ngi fi bi mu génnee Cheikh Moustapha Fall ne ko ah sëñ bi xanaa seetloo li nga wax mu ne kaa ah, lu mu doon mu ne ko ah, yow ay magam nekk fi ñëpp ne nga ko nga nga ne moo moo moo la fi nekkal mu ne ah, man de yàlla ma ko wax loolu ma wax ko rek noonu lañ nekkee. bu mujj sëñ bi loolu ñuy wax passage de service moom la ko sëñ Fallou njëkk a defal ci àdduna ci moom la jëkk itam ci ci ci kilifa yi benn kilifa boo xam ne yaa ngi dem di bàttali sa gannaaw jëmm yoo xam ne da ngay da ngay samp a dem wane ne daanaka moom mooy mooy sa jëmm ci moom la jëkke ndax am na lu mat ay weer yoo xam ne ci sëñ bi di nekk demagut ba El demagut am na ay weer yoo xam ne da koy yebal mu yeb ci kër kilifa mag yi. ak Baye Fall yi waa Njenn yi Njóobeen yi ñëpp rek mboolem ñi nga xam ne ñooy ñu aju euh, kàngami yoon wi kenn ku ne dana la yebal ci kër googa nga dem foofu yeesalaat leen seen digal laaj itam la nga xam ne mooy seen i jaaxle ak yëpp di ko rendre compte duñ ko fa jox ci addiya bu di ci daal di koy ne ko lii lañ ma fa jox nangam moo fa xew nangam moo fa xew nangam it laa leen wax. ba mu ko defee ba nga xam ne bii mat na ba nga xam ne kër yëpp daj nañu ci ci jamono yu képp. ci la sëñ bi liggéey. ni nga xam ne ni la doone sëñ Tuubaa daal ni la doone ni la doone ni saadix ni nga xam ne ko sëñ Tuubaa tànnee ba mu wuutu ko daal ni la doone murid saadix ndax murid saadix gi it ci li koy mën a tegtale bari na lool lenn na lu muy wax te tudd sëñ bi du am ay liggéeyam it ci Tuubaa moom mënees koo lim ndax mi ngi mel ni ndab lu taq loo xay daa fekkoon mu taq ba ñar mu raxas ko am set wecc duy ko ba mu fees dell ak leer ndax bi mu taxawee li mu njëkk a def ci dëkk bi mooy génne fi yaari yëf bu màggal dikkaa wala aw xew cigarette si day mel ni benn xadd bitik boo ubbi fekk ñuy jaay cigarette di jaay pon naar yi nekk di jaay pon yooyu yëpp moo ko raxas ba mu set wecc dégg nga marché Ocass it Serigne Fallou woote woon na ko bu mu dikk ba dikk dikk dikk dikk ba dara desatu ci ba nga xaye li yomb doomu aadama muy bew daanaka àggoon nañ ci def ko dégg nga loolu it moo delloo si nit ñi ba xamal leen leen fi dajale ba ñu mën koo jëriñoo lay loola mooy teg leen ci kaw yoon yoon woo xam ne wii mën nañ caaw ba jariñu ba fii mu ne loolee tànk yooyu ca la ñaaw ba fii mu commerce soo bu gis muy liggéey ci marché bi at mu jot day natt asaka fu ñu noddee ñoom ñëpp ñu maas dem ci jàkk ja te loolu lépp gannaaw yàlla nag gannaaw bi yéen fi ba noppi nag moo leen wax nag leen fi doon dajale dafa daal euh, sëñ Fallu daal dafa dajale mbooloo mépp ba mu moom nag mu dikk nag ci euh, ci maslaam bi bi dikkee nag moom mu wax leen li nga xam moo leen fi doon doon doyee loola mooy lu ñu war a jëfandikoo ci dëkk bi ndax lam fi njëkk génne daal mooy xetu cigarette moom moo ko génne dëkk ba mu set wecc naan di man di tëdd ci mbedd mi loolu moo ko fi génnee loolu yi nag képp liggéey ko doy na ci liggéeyal sëñ bi ba xaye daanaka topp na pays murit bu fu mu murit nekk rek boolee woote yi daane la ñuy tere ci Tuubaa maa ngi koy tere fii loolu nag doy na ndam sëkk Cheikh Abdou Lahad nag man dafa fees dell del del del ci man ba eh, awma ma taabir bu ma ko mën a génnee eh, li nga xam ne moom laa ci mën a wax nag moo di Cheikh Abdou Lahad nit la koo xam ne eh, mépp mënees na koo tënk ci ne karaama Sëriñ Tuubaa la dëgg la sax ñoom ñëpp karaama la waaye kenn ku ak ak ak ak ak ak melo bopp moom karaama sëriñ bi rek la dañ ci mën a xam ci saayir nag xam nañ xam naa ne moom euh, xel mu rëy mu rafet fa moom la mën a yem jikko jure jikko jure ju mat fa moom la mën a yem bis penc ba du fa yées kenn wax naa ko bu yàgg ñu ñu di ko dégg xam nga loolu <laughs> yaakaar naa ne foofu la mën a wax mën a yem sëñ mas naa ko wax ci ci ci kanam sëñ Abdoulatif di taal bi mu mag ci yoon wi jaay jaay jaay mbokk jaay mbokkam jënd ko taal bi mas naa ko wax dafa tiit ah loolu de waaye noonu laa ko waxee noonu la noonu laa ko laa gëm <laughs> xam naa dara du ma ci fekk waaye dama ne Cheikh Abdoulaye bis penc ba du fa yées kenn xanaa loolu doy na mooy dëgg ci man nag man moom laa jàpp waxoon naa ko bu yàgg <laughs>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 <laughs> comme ni ko waxoon dafa fees man ba nga xam ne mu ma ci wax waaye kon kàddu yooyu moom moom mën na génn. <laughs> waaye sëñ bi moom 1964 ba ni wàcc liggéey ah, ba ni wàcc liggéey mosu ñu fee teqali ko benn yoon. ëpp tukki daal la dawul dem waaye yi ci des yëpp da dama la taxawoon ci at ah, nekkoon ci ci kër gi te bi nag moom mm, eh, doon na loo ne lu kéemaan la moom ndax moom naka jekk moom. ba mu nekk góor xalifa itam ñi ko féetoon mag ñëpp kenn ku ne da toppal nam la war a toppe di la jox eh, eh, addiya di di sa lu muy bëgg def lu ne day ñëw bu fi mu diisoo ko yow di wax ak yow dawul def lenn lu leen ump mboolem ñi ko féetoon ci ci wàllu mag ñi ko féetoon ci wàllu mag dem ci ñoom ñi ñëw ci moom. Cheikh Abdou Lahad waxtaanam yëpp gudd gàtt. ci alxuraan la ak ci waxi Sëriñ Tuubaa def naa doy na firnde eh, maktaba bu rëy bii nga xam ne mooy daaray Kaamil nga xam ne jamono yam koy xalaat ak booba jamono bi wute na jamono yi ak ku fekkee liggéey ba xam la mu ca dépensé ci wàllu alal ak see gu ma ci téere yi de waaye jëmmi bâtiment ba rek la mu ca dépensé yéeme woon na ci jamono yooyu mu ko doon def ba mu ca noppee mu yëkkatiwaat lim boo xam ne yéeme na ndax su ma juumul ragal naa ne romboon na trois cent millions jëm kaw ci li jënd ay téere ndax xam ne jamono yoo xam ne fekk naa alxaaji Mouhamadul Mahmoud Niang fekkante nañu euh, Casablanca ca Maroc fekkante nañu itam Égypte ca Caire lépp muy gëstu di jënd wàllu téere yi. te ndigal ko sëñ bi joxoon mooy lépp luy téere xam-xam bu mën a jariñ doo aadama ci dundam ak ci ëllëg bu njëgg yéeme lu mën a jar na ko xayma jënd ko am na weeru koor woo xam ne fekk naa ko Maroc mu yàgg fa lool moom a alxaji Mouhamadou Mahmoun ngir di saytu liggéey boobee baragal naa ni euh, ñi euh, seenum tànk xaw a guddis néew nañu gis maktaba daaray kaamil ju réesee ni ji ci Touba te lépp di liggéeyu Cheikh Abdoul Ahad kon léppam alxuraan la yàlla def ko muy jëmm joo xam ne eh, dafa jeex takk ci Serigne Touba ci waxam ci jëfam ci jëngoom ci léppam dafa mel ni eh, noonu Serigne Touba. waxoon te mu mel ni ak ak waat buñ ko sañee tudde waat wax ne billaahi wallaahi wa tallaahi xayaati wa mamaati wa xarakaati wa zakanaati maha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu Cheikhul Xadim wax waat ci waat gi gën a rëy wax ne ak dundam la ci gannaaw ak dundam ab yëngoom ak dalam lépp dana ko ànd ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dala waxaat ne jëmmam ak léppam ak njabootam ak alalam def ko addiye ñeel sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Abdoul Ahad nag foofii sëñ bi tegoon tànkam ak foofi sëñ bi tegoon sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam manees naa wax ne foofii la teg Sëriñ Tuuba ci ngëm goo xam ne dara desu ca moom kat yi amut woon di jëriñ taalibe yi ci sëñ Tuubaa rek nit nguur yi sax ak nit àdduna yi dañ daan jëriñoo ci sëñ Tuubaa ci moom bari waa nag mën ngaa lim diw ak diw ak ba ñu ñëw ci moom gëmuñu dara respecté wuñ benn kilifa diine xamuñ kenn mais mujj nañ ñoom ci seen bopp dem teg ko foo xam ne nii tax nañ ñoom ñu teg diine ci euh, place bu mu soxla loolu nag lim doon yëg ne dafa am responsabilité représenté Sëñ Tuubaa ci suuf ci ci defar bindee fii Lola moo ko ko may te loolu nag lam ci doon def léppit daana wax bala ëllëg bis bu mu ko fi wax yàggut bu nga defee ne loolu xëy na fii téeméeraat lay nekk mu naan da dem ba lu yàgg yàgg boo doon dem arasaka ñu boo waxee lu du noonu nit ñi weddi ko te xam nañ arasaka dafa dëkk loolu lépp dafa bëggoon nit ñi xam ne sëñ bi ci pas-pas la ñuy dundee moom hmm? sëñ tubaa li ci li ci amal njëriñ ni ci pas-pas lay doon du àdduna du caaxaan du am mbërënt bu ko defee loola nag yëg googa mu amoon ci diggante ba bindeef yi am ko ci diggante ba taalibe yi moom lañ war di xentu te it ngeen xam ne man mii nekkoon ci werandaam ak keneen ka nekk ci wanag wa ak ka daan déglu rajo ba lam doon wax ak rax kay déglu rajo ba képp lay wax ak kii moom lay wax ak ki nekk ci werand werandaam yi mooy dundam suba ak ngoon ak waxam yi ca rajo bi ñoo yem mooy yàlla yonant bi sëñ Tuubaa ak ak gu seuk nite gu mat seuk julité gu mat seuk lool nak defe naa ku ko mën ku ko soxla ñun noo ko soxla ñun jamono ji nga xamné fu né lu la yàqalam nga fay jóge soxla nañu repère bu ton Cheikh Abdoulahat moo day doon dis gan digënté ak suñu borom di dis gan digënté ak suñu Touba tek ko feulé dik li nga xamné mëno ko ñak nga xamné ñi nga ci nga mëna doxale sa aduna ak sa ci ak nite ci ak ngoré ci ak pas-pas ak selal mu won la ci jikko yoo xam ni da nga ko mën roy te jikko yooyu doo ko ci def mukk bu ko defee loolu lu mën a màggal ak lu mën a def defe naa ci loolu dong lañ ko mën a la mu waxoon bu ba koy jàppanteel koy jàppanteel war a mel. lam daa doxe rek ak a waxee mooy dem ma dem ku mu demul ma dem sëñ Tuubaa rek la ko moo ko ñoroon. ci moom doo nga xam ci moom lu ko képp ku bëgg sëñ Tuubaa bëgg na la képp ku ko woon gannaaw mën na laa bañ a gis te adduna ak alaaxira waaw ñun ñëpp li ma xam ci moom mënu ko wax lépp ndax euh, dafa dafa jeexal sama xool takk takk takk tàkk tàkk bu dara de suumu ko waaw jëmm la joo xam ni daal nekk na ci adduna yor yor perkaal bu sol mbubum perkaal xuus ci góoju géeju dex ba jàll ta amatu gàkk loolu laa xam seen bilaat waaw jaar na fi ba dem daal amul benn gàkk